illallah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 wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalqi sayidina wa xabibina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaani ila yawmi diin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi ñu dellusiwaat seen jataay bii di xam sa ci ëttu soxna yu baax yi ki ngeen di àndal ci jataay bi seen mbokku jullit seen mbokku taalibe soxna jaarali tey nag ñu ànd ak ci li nga xamante ne nii mooy toj njàpp gannaaw ba ñu ànd ak ci jataay bii weesu ci li nga xam ne mooy faratay sangu ak sunnay sangu tey ñu war a xam lan mooy toj njàpp ndax li nga xamante ne nii su la gaaree ginnaaw bi nga jàppee ba noppi sa jàpp day daal di toj loolu mooy li nga xam ne su la gaaree ginnaaw ba nga sangoo ba noppi sa sangu day daal di toj nga xam ne balaa ngay dugg ci julli faawu kon dangay dem jàpp ji liy toj njàpp nag fukk ak juróom la la njëkk moo di ngelawal ngelawal su nu ko waxee mooy ngelaw loo xam ne sa ginnaaw lay génn su la gaaree ginnaaw bi nga jàppee ba noppi rek kon sa njàpp day toj waaye wax nañ leen itam li nga xamante ne nii mooy toj njàpp rek mooy toj sangu soo sangoo ba pare te duggagoo ci julli benn gaar la ci yii rek bu boobaa faaw bala ngaa julli kon dangay dem jàpp ji kon ba ca njëkk moo di ngelawal ñaareel ba ci nga xamante ni mooy toj njàpp ba tey moo di kabine ñetteel ba moo di saw ñeenteel ba itam moo di masio masdi nag bu nu ko waxee moo di ndox mu rattax muy génn ci zakara bu yëkkatiku ngir bànneex bu fekkente ni dangaa am bànneex yëg bànneex ba sa zakara yëkkatiku ndox moomu di ci génn doon ndox mu rattax moom la ñuy wax masyu mën naa génn nag ci ay xalaat maanaam ngay xalaat sa digganteeg sa soxna wala nga xool sa soxna sa zakara ka yëkkatiku ba ndox moomu génn wala ngay foog sa soxna ba ndox moomu génn boobaa bu la ci benn gaaree ci yii rek boobaa sa njàpp day daal di toj waaye bala ngay jàpp ji faaw danga raxas sa zakkara sa te da nga ca yéene yëkkati tajum mas yu waaye bu zakkara sa yëkkati ci xool boobu nga xool sa soxna ba am ci bànneex walla fogoo nga foog moom sa zakkara yëkkati ko ca waaye ndox génn ca bu boobaa itam te njàpp du toj juróomeel ba moo di waddu yu moo di ndox mu tal muy génn ci zakkara ci gannaaw bi nga sawee ba noppi amaana it mën naa génn ci lu am saw bu boobaa soo su génnee ci yaw rek ginnaaw bi nga sawee ba noppi wala nga mu génn génn ci lu am saw boobaa sa njàpp day daal di toj kon wat <coughs> moo wadd ndox la mu tal bokkut ak <coughs> bokkut mas yu moom ndox la mu rattax wadd yu nag ndox mu tal la moo xamante nii day génn ci ginnaaw bi nga sawee ba noppi wala mën naa génn sax ci lu dul aw am saw kon ndox moom it bu génnee ci yow te fekk amee woon jàpp sa njàpp day daal di toj juróom benneel ba moo di man yu man yu mu génn ci lu dul bànneex mën naa génn ngir wopp walla nga sonn amee coono boobaa sa man yu su génnee te fekk da ame woon jàpp sa njàpp day daal di toj mën naa génn itam ngir bànneex ba mu baaxoo génn wala mu génn tam ngir bànneex bu dul ba mu baaxoo génn ci sa ci sa ngay wokkatu soo wokkatoo wokkatu gu ëpp ba sa mànn yu génn boobaa euh, sa njàpp day daal di toj waaye bu génnee ngir bànneex bu mag ba mu baaxoo génn nag moom su boobaa sangu day daal war ci yow loolu mooy juróom benneel bi ci nga xamante ne ni day toj njàpp juróom ñaaleel ba moo di ndox muy génn ci pëyam kuy bëgg a wasin bu gisee ndox moomu te wasinagul te fekk amoon na jàpp boobaa njàppam day daal di toj waaye bu fekkente ni nag dafa wasin nag kon sangu day daal di war ci moom ci saase bu fekkee amul benn deret waaye nag su dee ne dafa am ay deret day bàyyi ba ndox ma ba deret ja dog mu door sangu juróom-ñetteel ba ci nga xamante ni mooy toj jàpp ba tey moo di say koo xam ne jinne da koo sadd muy say àndul ak sagoom kooku su fekkoon mu amee woon njàpp njàppam day daal di toj juróom-ñeenteel ba tey moo di koo xam ne dafa jàpp ba noppi daal di xëm boo xamee ba ximmili ko bu boobaa sa njàpp day daal di toj faaw bala ngaa julli kon da ngay jàpp juwaat fukkeel ba moo di ko xamante ni dafa jàpp ba pare daal di màndi soo màndee kon sa njàpp day daal di toj fukkeel ba ak benn nit mooy ay nelaw yu diis nag lu mu gàtt-gàtt rek su diisee ba nga xamante ni nii la nga yoroon ci sa loxo tëdd wadd na te yoratoo ko ba te yëgoo ba muy wadd wala nga tëdd ba yuut sab lex te yu ba ngay yuut lex ba yëguloo ko ndax nelaw ya ndax nelaw ya dafa diis gu mu diis moo tax yëguloo ko nelaw yooyu lu mu gàtt gàtt rek te màndarga yooyu feeñ ci rek muy li yor nga sa loxo dara wadd na yëguloo ko walla nga yuut te yéguloo ko kon dangay dem jàpp ji ndax sa njàpp toj na kon bala ngaa dugg ci julli faaw dangay dem jàpp ci waat lu mu ak lu nelaw ya gàtt gàtt rek boo ci gisee màndarga yooyu rek njàpp ma day daal di toj fukkeel ba ak ñaar mu kallaf mu góor mu laal yaram mu jigéen wala kawaram wala weewam wala ay siram te laal gam ko laal nag mu jublu ca bëgg caa am bànneex su ca amee bànneex ak su ko ca amul it njàppam day daal di toj ndax moom la ca doon saaku waaye bu fekkente ni jublu laal gam ko laal jubluwu ca bànneex waaye amu ca it bànneex bu boobaa njàppam di toj mukallaf mu góor nag ak mukallaf mu jigéen nag ñoom ñaar ñoo yem ci laal googu comme mukallaf mu góor su ko laal su laalee kawaru jigéen wala weewam walla ay siram la jublu ca bànneex am ko ca wala amu ko ca ni njàppam di tojee bu dee gaaree jigéen it noonu la am njàppam di tojee fukkeel ba ak ñett mu kalaf mu góor ak mu jigéen ku ci fóon moroomam fóonub gémmiñ suñu ca amee bànneex ak suñu ko ca amul ak suñu ca jubloo am ca bànneex ak suñu ko ca jubluwutit seenub njàpp day daal toj waaye itam foon gone ngir yërëm ko itam te tojul am njàpp foon sa waajur ak sa kilifa walla sa soppe wala ku jege ci yow ngir màggal ko ak yërëm ko itam du toj am njàpp góor ak jigéen nag ñoo ci yam fukkeel ba ak ñeent ci nga xamante ne mooy toj njàpp ba tey mu kalaf mu góor mu laal zakaraam ci biir tenqam wala ci peggi tenqam wala ci biiri baaraamam wala ca peggi baaraam ya bu ko laalee ci kaw ay sëram njàppam du toj waaye fekkente ni nag ca biir tenq yàlla moom njàpp ma day toj bu laalee xaraam ju dul zakaraam itam du kon njàppam tojul jigéen ju laal pëyam itam ak na mu ko mën a laale itam du toj ab njàppam donte nag lonkal na baaraamam itam du tee njàppam du tax njàppam toj foofu nag mu am ak wuute ndax am na boroom xam-xam yoo xam ne dañ na su fekkente ni indil tafatil ba indil tafat yaddaha su fekkente ni dafa lonkal baaraam ci biir pëyam ba baaraam dugg ci biir pëyam booba am na borom xam yoo xam ne dañ ne njàppam doy toj waaye fii moom am na ñoo xam fii moom li mu indi moo di njàppam du toj fukkeel ba ak juróom ki nga xam ne day sikki sàkk ne jàpp na wala déet wala muy sikki sàkk ne ja jàppam toj na maanaam xam na ne sax léegi day sikki sàkkane jàpp na wala jàpput kooku day dem jàpp jiwaat waaye waaye wala muy sikki sàkkane man ka jàpp naa waaye dama xamul ndax sama jàpp toj na wala tojut kon kookit day jàpp ji te julli jiwaat waaye sekkeen dafa nekk ci biir julli gi di sikki sàkk jàppam toj na wala tojul wala jàpp na wala jàppul bu boobaa na dagg julli ji te jàpp ji julli jiwaat yii mooy yi nga xamante ne nii fukk ak juróom yi nga xam ne benn bu ci gaar ki nga xam ne dafa amee jàpp walla mu sangu te gut rek njàppam day daal di toj wala sangoom moomu day taal di toj nga xam ne balaa dugg ci julli kon faawu rek day dem jàpp ji wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله